nga ci ñu jàpp ne et c'est la dernière question euh, jot nañu souscrir à un code d'honneur dans l'espace politique pour éviter les dérives langagières euh, ton concitoyen de Thiès Birame Souleye est en prison pour des propos exagérés yu mu wax lui-même l'a reconnu et a et a demandé pardon aujourd'hui au Sénégal que ce soit dans l'espace politique ou dans l'espace médiatique il y a euh, a beaucoup de détenus d'opinion d'abord sur le code d'honneur dans l'espace politique da nga ciy souscrire et sur les propos de Birame Souleye man sama code d'honneur du loo xamante ni nit wala ay seen débat yi te sama code d'honneur mooy éducation bi ma samay waajur jox éducation bi sama askan jox fa ma jóge ci Kajoor éducation bi nga xamante ni jox nañ ma ko loolu mooy sama code d'honneur ca maa ngi sàmmante ak moom lu ma lu ma lu ma lu ma mën bu ma demee ba mu wóor ma ni politique nar naa xañ valeur yooyu damay bàyyi politique ndax valeur yooyu ñoo ëpp doole pour man ci biram Souleye biram Souleye sama nattaangoo maire la biram maire la fële ci Thiès commune Thiès noor ma leen di masaw bu baax conseil municipal bi yépp ak adjoint au maire Birame adjoint au maire la ville de Thiès di suma xarit ñu bokkandoo yeewi man ak waa partem bokkuñu ay xalaat de mais sama diggante ak moom musul ñagas tey ndogal dal ko ndogal laa ko mën a tudde ndax dafa juum am humilité nii nangu nañu dafa juum Youssou Ndour daf ni nit ku dul juum amul yow dangay juum man damay juum président Macky Sall dafay juum procureur de la République day juum juge bi ko war a juger aussi dafay juum yéen journalistes yi di bind ci Birame Souleye chaque jour da ngeen di juum moom am na humilité def vidéo bàllu président de la république bàllu Alassane Ouattara bàllu waa APR. non bàlluwul président Alassane Ouattara. non présenté na bàllu président. non bàllu na président il a regretté ses propos tout simplement. regret bàllu li am solo mooy Birame Souleye reconnaître na ni def na ay erreurs. mais est-ce que c'est normal ce type de discours dans un espace politique aussi. non man nekkuma fi pour juger xam nga biram sama doomu ndey la mag waa parteem déggoowuñu waaye du tey day nekk ci ay jafe-jafe du sama rôle ma nekk fii di ko juger bis bu ma amee lu ma koy wax saa suñu wéetoo ma wax ko ko ndax naa jël sama téléphone ni ko mon frère nàngam ak nàngam ak nàngam bi mu mujjee jote ak moom avant lii di ko dal woo naa ko téléphone wax ko sama xalaat en tant que frère waaye du nekk ci ay jafe-jafe ma toog fii di juger li am solo ba am solo mooy jàpp naa ni débat politique bi au Sénégal war nañ ko élever le niveau loolu moom jàpp naa ko bu baax a baax ñun ñoo ngi ciy liggéey. alors yaa euh, Birame Souleye Bassirou les Fadilou El Malick Ndiaye euh, aussi mu ngi ci circuit judiciaire euh, ñu koy attribuer un audio d'appel à la à la à la violence ñu bëri douter de l'authenticité de de de l'audio alors. Euh, que ce qui passe alors ce sont les hommes politiques ñoom ñooy def ay dérives ñoom ñoo xamul lan mooy politique ak lan moo dul politique wala c'est l'État moom moo nekk di restreindre les les les les libertés parce que barina tamit ñoo xam ne dañ leen di jàpp parfois tu te demandes euh, lan moo lan moo lan moo xew. dérive yi am kay may mun a ko waxul rek dérive yi mooy ñu yor doole yor police ak gendarmerie war a saytu kaarange askan wi. jël ko doole jooju di ko jëmale ci ay ay homme politique di ko jëmale ci ab parti politique loolu mooy dérive dérive yi mooy ñi jël Ousmane Sonko def ko résident surveillée loolu mooy dérive yi nañ ko wax loolu mooy les vraies dérives je pense que ni foofu la dérive yi commencé loolu moo indi violence bi ci dëkk bi donc loolu mooy le problème Macky Sall doxalinam moo baaxul moo ñaaw ci politique ndax ci fitna ci doole la ko teg loolu moo baaxul le bilan politique de Macky Sall est très ñaata prisonnier politique la fi am ñaata journaliste lañ fi tëj ci kaso yow mii sax ay jamono menacé nañ la fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc loolu système politique bu Sénégal démocratie Sénégal passé woon nag loolu mooy dëgg bi doxalinu Macky Sall moo tegu ci doole c'est un état violent violence boo àndut ak moom boo ko ak moom xalaat nga jàkkaarloo ak moom ñun ñi ñaata yoon lañ ci dem prison Guy mari Sagna ak ñeneen Aliou Sané ñi ni suba dañ koy dañ koy dañ le procureur dafa def appel encore une fois de plus euh, donc ma koy apporter suñu soutien c'est un grand combattant nit ku nit ku am personalité boo xamante ni ñëpp yaakaaroon na ni yaa a marre bi fi Fadel jógee woon Y'en a marre day disparaître mu am ci taxawaay di un jeune courageux comme ça je pense que le procureur là na delloo si xelam. mënuñu y a des y a y de beaucoup Euh, Aliou Sané dañ ko jàppee euh, participation à une manifestation euh, interdite avant c'était euh, voilà benn journée ñu teel a après ils te relâchent mais maintenant on, est-ce qu'on n'est pas en d'assister à une banalisation de la case prison waaw ouais, mais loolu ñi yóbbu ñi yóbbuwaate foofu ñoo ñu nga koy wax loolu moo baaxul mënoo judiciariser le débat politique il y aura toujours un débat politique le débat politique est est est, est conflictuel may mun a ay waxante la. ay waxante aussi dafa am fu mu war a tegu. Oh, je pense que boo nekkee homme politique nga dem ba nga ne da ngay nekk dans l' espace politique aussi war nga am benn niveau intellectuel bi war a tax di nga wax sa soxla. d' accord naa ak ah. yow doo créer incident. d' accord naa ak yow. d' accord naa ak yow mais li xew ci Sénégal actuellement di utiliser justice pour régler ay débat politique mënoon na ñàkk li xew ci affaire Mame Mbaye bi xam nga ni mënoon na ñàkk lu yu gën garaaw yooyu am na fi. ab Ablaye Wade ak Moustapha Niasse am nañ fi problème ci yu demee noonu parce que débat politique moom mel noonu mbir di wax na dëkk li mu wax amewul li mu wax demeewul noonu mais génneel on communique génneel les faits on passe à autre chose jarul nga ciy tëj nit jarul nga ciy toroxal nit jarul nga ciy éliminer un adversaire politique mu bañ a bokk ci élection man effort boobu laa bëgg président Macky Sall def ko ak ay njoñam ak ay ñoñam vraiment ñu bàyyi judiciariser le débat politique li nekk ci ay prisonniers kaso bi bëri na li Pastef am ci ay prisonniers ci kaso bi may mun a bëri na nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg li ñu teg Ousmane Sonko résidence surveillée jaaduwul teguwul ci dëgg teguwul ci yoon teguwul ci justice donc loolu mooy dëgg bu loolu weesoo yooyu yëpp di ay rëq-rëq yi nga xamante ci doxalinam moo ko indi bu loolu weesoo yaakaar naa ne boobaa xel yi dina mën a dellu si ñu mën a def élection yoo xamante ne ku askanu Sénégal wóolu fal ko démocratie day continuer librement